moo dox combat bi nga xamante moo dox ci diggante Bébé Garga bu écurie Balla Gaye ak ki nga xamante ni mooy Petit Lo euh, bu écurie Rock Énergie mbokk yi ñooy bëree combat spécial bi nga xamante ni moo dox ci diggante Moustique ak ki nga xamante ni mooy Angleterre tey nag ñu dajale leen fi bëgg waxtaan ak ñoom parce que ku ci nekk yaakaar naa Bébé Garga moo ci cinq combats quatre victoires benn défaite moo ngi ci deux trois combats benn défaite deux victoires mbokk yi tey ñu dalal leen fi bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom ci combat bi nga xamante ni mooy dox ci diggante ñoom ñaar ma bàyyi leen ci nuyoo ñu doo a wéy waxtaan wi Petit Lo nuyu naa la. waaw onze bi laa bin saa rajim bisimilah ginnaaw ma sant yàlla jul si bi di sant sama ñaari waajur ñu nekk ci plateau bi yëpp di la nuyu Ousin di nuyu sama adversaire yi fi nekk yëpp waaw. naa defe naa jaaroon nga fi ñëwaat nga fi. waaw ah, jaaroon naa ñëwaat naa fi. <laughs> choix lan moo waral Bébé Garga daal di xew. waaw ah, parce que ay naataango lañ rek ay moroom lañ ci làmb. Hmm. mënu ma ko bañ moom aussi mënu bañ. mais bu ñu xool moo la moo la moo la xaw ëppi combat ëppi les victoires nga nangu bëre ak moom. waaw moom ëpp combat ëpp ma ay victoire daf ma njëkk a rek amaana. Eh, mais ay morom lañ ay génération lañ ci làmb mënu ma ëpp ay combat mais ay morom lañ. ay morom ngeen. waaw. Bébé Garga nuyu naa la. auzu billah bismillah inna wali yàlla. Mhm. sant yàlla jul ci yonante bi. sant suñu ñaari waajur. di nuyu suñ sëriñ suñu Moustapha Gaye borom jàng ibnu sëriñ Baara Gaye di ko ñaanal mu yàgg fi loolu tamit di nuyu ñu fi ma fekk ñëpp nuyu sama papa Mbës sama adversaire maa ngi koy nuyu Petit Lo di nuyu ñëpp daal. Hmm. waaw maa leen jaar bu di nuyu ñëpp. <laughs> lan moo waral choix bi nekk Petit Lo. waaw moom wax na ko sànq ay moroom lañ. Hmm. kenn mënul teggi sa morom. amaana buñ bëriwul jamono ji sax dinañ bëri ci kanam. Hmm. waaw loolu la rek ay moroom lañ. mais dama gis dama gis palmarès bu gën a riche bosom mais nga nangu ko jël parce que ku def euh, trois combats deux victoires benn défaite daanaka kooku defagu fi da non def na fi dara sax làmba ñu boole rek. Hmm. waaw comme li mu wax rek dama ko njëkk a bëri xëy na loolu la. mais nag défaite dafay ragal loo mbër de est-ce li nga daanoo tax nga dugg ci moom. non non Petit Lo yàgg naa bëgg a bëree ak moom. yow yaa yàgg bëgg a bëree waaw bëgg naa bëree moom premier combat am ba kii nii mais tey la ko yàlla lan moo tax nga yàgg bëgg bëgg ak moom parce que daf boo xoolee nag boo jutoo nit ci làmb mu dugg si ah, nga bëgg a ak moom lan moo tax lan. waaw dama gis si moom jàmbaar day bëre day xeex. Mhm. waaw tay ko mbaam day gaaw te man dama bëgg mbër bi def loolu. waaw bi ñoo mbësu woowee ma ne ko amul benn problème moom sax du ma moom avance bu mu jël ma bëre ko. kon waxaale bi yàggul. non non man du ma waxaale làmb du yàqu si man waxoon naa keroog mhm. arène nationale. ah su ma damay damay ñëwaat nag ci sa combat bi mujj. combat mujj euh, mbës sax keroog am na lu ko xaw a bett tuuti combat mujj kenn xàmmewu la. booy bi mayuloo nga def daal nan la demee. waaw dala waaxoo la. non defete ñëw rek. noo de waaw bàyyi leen bu leen bu leen daan bu ngeen daanee nag décortiqué bu leen daanee du ngeen nangoo wax. waaw non xam nga làmb jii chaque jour day wane boppam. man ñi ma daan ñoo mën fuuf kooku. mais moom moo la daan. d'accord moo tax ma la defet moo ñëw. keroog la moo tax puusuloo paasuloo. waaw làmb la rek. xëy na daa am côté. mais nag yéen bu ngeen teg ay victoire da ngeen xaw a waane xaw soof yooyu noonu tuuti. non. ñëw xam nga di jéem a jaay man daal man man keroog xàmmewuma la. non làmb la rek. xam a defet moom buy ñëw cuune ngay doon. waaw mais am na lu ñu jàngalaat bu baax a baax a baax waaw. nga daanoo ko siisu nga. waaw siisu naa parce dafa metti nga ànd ak say mag say papa say mbokk ñëpp di la jàppale. Mhm. xam di sonn guddeeg bëccëg fu nañu fay ànd ak yow ku ci mel ni mbës. Mhm. bu ma daanoo yàlla xam ne ni moom la laa njëkk a xalaat waaw. mel dañoo am yaakaar ci parce que ni mu leen gisee bi mu leen gisee ñoom ñu ñëw mhm. dama ne kan la ñu war a andi. loolu laa njëkk a wax bi ma dugg see ci stade bi. waaw loolu moom école yi Balla ñoom xeebuñu ñu kuy bëree premier combat grand combat ñoom ñëppay ñëw mhm. ku nekk loolu lañ lay gunge quoi. nan nga na ñëwaatee sa digganteeg. Petit waaw ñëw rek jàpp ko daan ko rek. la loolu moom loolu moom mënul yombee noonu Petit ndax boo bi dafa ñëw keroog. param 2 mayu ko daa non param 2 la ah. param 2 ko daa vite la ko def jaxase ko. taxañ teg ne. non jaxase wu ma de bul wax jaxase. ah déet dalaa jaxase. non non nangu wax kay. <laughs> la kay nangu woo wax dalaa jaxase. waaw jaxase wu ma sax toog waa léegi wax ma léegi comme gannaaw sànq wax naa nga ne noonu daf ma daan. léegi naka la la def. waa dañoo bëre rek xam dama juum si biir bëre. waaw non wax ma rek expliquer man maa ngi fa woon kay. waaw dañoo bëre ma hmm. dóor ko indi mu ñëw ba si saako yi xam nga sama yaram daal mu àgg fu sori. mooy wax ne bi may wax parce moo tax ma ne defuloo daa une deux la <laughs> ñu yekk bu sooy daan ko. dama jiw nim naa naka la naa parce xam naa ne bu ñëw moom fi mu toll ni mbës lépp lu mu am ah Lamine lépp lu mu am dinañ ko def ci booy bi parce que nag am na fu ko teg loolu moom dinaa la ko wax tey nga xam ko xaw ma yow xam nga koom déet nag ak bëgg bi bëgg bëy bi mu bëgg bëy ak yow depuis sa premier combat ba léegi xaw ma yow naka nga na ñëwee sa diggante ak moom. waaw ah, man de sama papa lépp lu om dina ko def si man ak sama gars àndal tamit lépp lu ñu xalaat ne ah sama papa xanaa <laughs> sama papa ak sa papa Modou ak sama papa yëpp. Euh. ah lépp lu ñu xalaat ne tamit. buñ ko defee ah, Modou est-ce que Modou est dina ko tal Modou fi mu toll nii. Ah, wane tal dina ko tal kay ak ah. ko tal. ah tal na ko a nag sa diggante ak booy bi. ah mais ndaanaan la de. waaw ndaanaan la moom wax dëgg. xam nga ay combat waaw seetaan naa ay combat xam naa ko xamul am rek ah seetaan naa ay trois combats ma seetaan naa ko seetaan seetaan ay combat am hmm. Hmm. loolu nga gis ci moom yaakaar ne boo jëflante. non moom jàmbaar la wax dëgg ah, day bëre day xeex combat mi ma seetaan yëpp nag. day hmm. bëre day xeex. mais combat bi mu mujjee seetaan ban faay la ci def. non man gisuma ci faay def te ñëw rek comme ni mu la wax rek ah. ah def te ñëw ah. <laughs> gis ngeen mbokk yi noonu lay demee ci jàmmaarloo moom Petit moo ci 3 combats Bébé Garga ngi ci 5 euh, combats euh, Ouzin Diar fi taxawal loolu mu nekk affiche boo xamante ni nag affiche bu neex la waaw ma xam nga ne xool kii sax gënalu gis nga mu nekk affiche boo xamante ne affiche bu neex la mu nekk spécial boo xamante nii la 14 doo ma bàyyi <laughs> mu nekk eh, bàyyi ma bu leen ko dagg de bàyyi leen mu dem mu nekk affiche boo xamante ni affiche bu neex la euh, fi bi nii. moment bi ñaata ñaata séance d'entraînement ngay def parce que defe naa yéen moom bu ñu correctee rek dañuy dañuy dañuy dugg ci combat bi. waaw guddi gi rek laa entraîné. kese benn séance waaw. tuutiwul. waaw moom laa entraîné. mbër mu jógee ci defet ma yaakaar dafa rey boppam. waaw benn séance kii sax moo war a xaw a kii sax moo war a xaw a zaloon tuuti gannaaw ci victoire lu jógee. Ah, mais non amul de. <laughs> benn séance laa entraîné rek. Hmm. waaw je crois benn séance doy na. yaa ngi ci entraîné xeex. waaw bu baax ma lamb rek bëre lépp la ñuy waaj. kii de nee na moom làmb moom loo ci mën a dégg ba dégg ko ci xeex dafa am par force. waaw ah, bëre door la mënul ñàkk xeex. ñoom ngaa xeex ak moom. Ah, bu ñu ragalee door dem bëri ji simple waaye. ajal mi ko tuuti. dama bu ñu ragalee ay door. mais la moo leen waxante yéen ñaar ngay waxal moom man waxal te pourtant yéen ñaar yéen a ngi fi toog. ñu ngi waxante sax. waaw. Hmm. Ah. nga wax ko nga soo naayee. ragalee ay door. ay ci li simple bi. ah bëri door la rek. waaw dañuy pare lépp. bu ñëwee dañu bëri dañuy xeex. fa nga daan teg sa loxo foofu nga koy tegaat. waaw incha allah li ma daan def rek laa def li ma jàngat rek laa def. Mm. Mm-hmm. ngaa xeex kii. waaw ah, ñëw naa xeex ak moom koy su ma ñëwul woon du ma jël avance am. su ma du ma jël avance am. mais la ko def quatre com quatre cinq combats. Ah, ndaanaan la kay macha allah ndaanaan la wax dëgg. bi mu ah, ne tamit mooy loolu ñu ngi ci de. bi mu ne bi ne sa premier combat ba léegi moo ngi bëgg bëgg ak yow wax ji noo ko déggee. ah loolu day am loolu day am. Hmm. a ah, loolu du dara. wala est xam nga ne moom lay waajal. Ah. waaw waajalu ma ko de. Ah, da ngaa pare. moo <laughs> la waajal woon mu lay waajal. yaa ngi des doo doo toog rek. des fois doo toog sant sa xaw a diis. Hmm, la benn yoon. non non. Bébé waaw ñu ngi waajalante comme li mu wax rek ñu ngi waajalante moom. mais nag seen sedd bi ngeen sedd nii neexuma quoi ay ay ay xam nga mais sedd bi fii nii fii mënul tàng sax quoi. non mën na tàng foofu quoi. mënul bu ñu demee ci géej bi man ak moom. ko pare nga. arbitre ne ko pare nga xam nga ne mënatul sedd. lu leer loolu la. waaw ñu noonu. bu tàngee tàng tamit mënul tàng mu dóor ko mbaa mu jug dóor ma non mais mën ngeen waxante parce que yow fi mu toll nii lu ci mën a xew ba xew ko ci mooy yaa ngi yaa ngi waaj di dem entraînement di préparer boxe dugg ci àll bi coono yooyu boo koy daj nag mënoo ko yéene jàmm. non est-ce que ju wéeru koor lañ nekk duggagum ci àll bi waaw war non mais bu ñu woowee est-ce que dem ci euh, kii rek moom moom. bëru mag day woote ñu koy indil moom du def man kay maay sonn di dugg ci àll bi. Oh, yow yow yow mbës a ngi fi mbës. waaw loolu moo mu taawee nii moom. gaa dañ koy yónnee rek moom du dem fenn. Hmm. waaw coono yi ñun maag mbës ñoo xëy daj quoi. mais nga jóge ci defet dugg ci combat bu toll nii. préparation bi lu mu laaj waa li ñu doon préparé dañ koy yokk rek. Mm-hmm. waaw li ñu doon dañ koy yokk rek xam ne làmb ji la du làmb ju ndaw quoi. Mm-hmm. képp ku ma woon la am naa kombaa maag Petit Lo xam nga benn baat bi la combat la combat bu jaar yoon la affaire yooyu waaw. Mm. loolu la rek. yow boo yëglee lan ngay dégg lan lañ lay wax écho ci booy parce que tamit loo ci mën a dégg dégg ko ci mooy am nga ñoo xam te ne dañuy suivre làmb wala ñu xam làmb. boo njëgalee combat bi lu ñu lay wax. amoon ah, na wax dëgg amateur yi nga xam ne dañ may suivre yëpp chaque jour dañu dem esat hmm. bu ma ci wax combat bi am na ñoom tën sax waxuma ne ko ñoom ñoo woowoo dem am nga combat. Hmm, ñoom ñoo woowoo quoi dem am nga combat respecté ko. baa xeebuloo ko. non xeeb yàlla tere non xeebu ma ko de. Hmm. non non ki ñëwee moo ko xew sax ki nga xamante ne su ko ëppoo ko nga bëgg ko xew. lan ngay lan ngay lan ngay lan ngay wax Ouzin mi nga xamante ne moo taxawal moo taxawal. ah Ouzin moom dañ koy ñaanal yàlla defal ko jàmm rek xam nga comme am na yaakaar si ñun ba tëgguñu moom. waaw mm. di ko ñaanal yàlla bu yàlla tas yaakaaram quoi xam nga waaw ah, ñun tamit ñu def lépp loo xamante ne mën nañ ko rek pour waaw ah, pour satisfaire ko quoi. Mm-hmm. maa ngi woon nag waa parce que lépp 1 ba 26 waaw waa Tëngéej waaw ah, gars yi def mobilisation bu garaaw ndax maa ngi doog a bëri combat spécial quoi te combat moom fonk wax dëgg ndax xam naa tamit lu mu a may. entraînement ay séance d' entraînement yi. deux séances laay def avant ndogu après ndogu. avant ndogu nga dem entraîné boo ndogoo pare demaat. waaw cinq looy def. cinq heures saa demaat mun naa dem géej mun naa dem diin. mën nga dem géej wala nga dem diin. Mhm. ngoon looy def. ngoon mun naa dem contact mun naa dem salle. Hmm. yaa ngi ciy entraîné bu baax. waaw maa ngi ciy entraîné boxe kay. Hmm. gis ngeen mbokk yi fii sax lañu ñu woon njëkkee ñoo ngi jàll ki nga xamante ni mooy Moussa Dioum suñu gara suñu lépp fa la ñu woon njëkkee waaye xel dafay fattu di wax ne moom nit ku baax la nit ku yiw la fépp foo xamante ni Moussa Dioum nekk na fa kenn du ñëpp day bëgg di jaxas di di boole nit ñi di waxtaan ak ñoom day kaf day ree nit koo xamante ne la nit ku amul benn problème la xëy na peut-être nag feebar bi yàgg na ci moom ba tax na wanewu ko woon sax feebar da koy sooxaale di ko sooxaale di ko sooxaale di ko jaal waa Parcelles di ko jaal moonu làmb di ko jaal képp koo xamante ni nii yaa ngi yaa ngi jege woon nga ko wala képp koo xamante ni jege ñaale woon nga ñoom la koy jaal bu baax a baax a baax a a baax di la ko jaal yow koy jaale waa Parcelles yëpp ko jaale raxam baylaat hmm. ak xaadim ak siga ñu ngi jaale waa Parcelles yëpp ndax wax dëgg grand bu baax la wax dëgg wallaahi grand bu baax la man sama combat bi passé rek war na ma téléphone ñu déggante mu conseillé mu baax a baax ñaanal ma mu combat bi jàllee ñu daje mu félicité ma grand bu baax la quoi grand bu oyof la quoi bu yëg mu xamul mbër bu ndaw wala mbër bu mag. Hmm. ñëpp la yemale quoi ñu ngi koy ñaanal yàlla yërëm ko xaare ko àjjana yàlla di ko jaal Lamine Tamba ah, di ko jaal Kalso di ko jaal waa Parcelles gépp gépp nga xamante ne nii ah euh, seqoon naa ñoom jàmm seqoon naa ak ñoom lu bëree bëri bëri daal maa leen koy jaal bu baax a baax. Hmm, soo amoon kàddu yu mujj lan lay lan lay doon. ci émission bi. waaw ba tey. waaw kàddu teel na de. <laughs> ah yéen nangu leen man kat man kat bëgg naa ngeen jàmmaarloo waaye nangu leen nangu da ngeen. da ngeen mais bu ñu demee ci géew dinañ jàmmaarloo ba nga oh, kontaan. mais a jàmmaarloo parce que ay combat wax man sax damay xaw a damay xaw a musu yooyu te xam nga loolu sama habitude. naa ma jàmmaarloo bu ñu ñëwee ci géew moom saa waay bu la neexee jàmmaarloo émission bi nga ñëw defee ko sax le 14 loo xamante ni am ci làmb Bébé Garga euh, signature contrat wala combat bu tax wee mbëri dañ ko war a jaay dañ ko war a neexal ba mu neex. loolu combat bi jaay na boppam ba pare. waaw combat wax dëgg yàlla jaay na boppam. non mais yéen da ngeen ko war a jaay. combat bi jaay boppam ba pare jarul jaay. déedéet. <laughs> loolu la mais fii xam nga mun na sedd mais bu ñu demee ci géew ba tamit mënul sedd quoi mais fii nii dara mënu fi fait. mais bu ñu demee ci géew bi sànq ba léegi mooy wax loolu. bu ñu demee ci géew bi bu ñu demee ci géew bi bu ñu demee ci géew bi. waaw mais loolu mooy loolu la sax fii dara mënu fi am. làmb ja kay bu arbitre soufflé. bu demee ci géew bi loolu. waaw lan nga ko naal bu demee ci géew bi. bu demee ci géew bi arbitre soufflé ma jàpp ko daan ko rek loolu laa bëgg. kese kese kese. doo xeex. ah ça dépend bu ko laajee ñu xeex. non moom nee na day xeex moom nee na la bu ñu demee ci géew bi. waaw waaw amul problème moom na indi xeex indi lépp ma indi xeex indi bëre indi lépp rek. en tout cas daal gars yi ñu ngi xaar combat bi te combat bi nekk combat bu ñu waaw nañu war a ñëw quoi ñu ñu def dañoo war a ñëw def yëpp xale quoi ñu bëggal amateur yi ñëpp waaw comme gars yi ni ñu déggee combat bi. bu ñëwee est-ce que du téye boppam parce que bee paase dafa ñëw xaw a juum est-ce que bu ñëwee xam nga defe na dafa régal loo mbër. non dama téye sam boobu damay bëri si. da ngay bëri si waaw damay bëri damay xees. Hmm. waaw loolu nañ rek man de mu bëri si ma xees xam nga mu neex ñu bëggal amateur yi satisfaire gars yi ndax gars yi dañuy bëgg loolu quoi ñaari xale bu ñu leen boolee ñu wane seen boobu. Hmm. Hmm. bu fekkee. combat yi incha allah mooy daax si journée bi. loolu nga yaakaar waaw. papa nag papa nag yow dalaa jege de gii waaye moom mooy ñëw. kan mooy ñëw. moom waaw moom maa koy dalal. waaw. wàllu mobilisation bi. non laa ma ne moom mobilisation pare nañ si. depuis combat bi ba léegi. chaque hmm. jour fan club bi ñu si réunion ñu def ay démarches quoi incha allah jour ba di ngeen gis mobilisation bu bëri incha allah. sa première spéciale. wàllu mobilisation bu faj tool. ah mobilisation moom ñu ngi ci waaw ah, gars ñu ngi ci bu baax a baax a baax wax dëgg ñu ngi ci bu baax a baax wax te bu ñëwee gars dinañ gis ne waaw dañu bokk ci laamu daal incha allah te dina ko dina ko. wane di nga di nga di nga wanewaat sa bopp wala di ngeen wanewaat seen bopp. ah dinañ wanewaat suñu bopp. Hmm. Hmm. ndax ñun ci wane suñu bopp lañ dëkk. heure bu ñu ñëwee SR rek dinañ wanewaat suñu bopp dinañ gis dinañ gis leneen daal. lii daal la. li nga gis la rek. ñu wër a woon jàpp ci combat bi la. <laughs> boo amoon kàddu mujj lan lay nekk. nga woote sant gërëm. waaw xanaa di woowaat waa Géejawaay bu baax a baax di leen woo di woo sama waa dëkk. ku muy waa Njëgëj Kër Bakar Kër Baba Njaxate Gor moom waa Mewaan. di woo waa kër Ndiob bu baax a baax ak waa kër Babou Alima gi nga xam ne fa dëkk. Hmm. ak waa kër baakar waa Mbayeen woo waa Njee waa Njuki waa Tayba di woo waa Njuki ñëpp di leen woo ñu jàpp si combat bi bu baax a baax di woo waa Touba. di maa ngi koy woo mu jàpp maa ngi koy woo Jeune di woo ñëpp daal. waaw di wax ñi nga xam ne ñoom war a jàppale nag muy Ahmed Aïdara Pape Mama Fall. Hmm. Cheikh saw maa leen di woo ñu jàpp si combat bu baax jënd man ay billets rek laa soxla soxlawu ma leneen nañ ma jëndal ñu may jàppale rek nañ ma ko jëndal ay billets. nañ ma ko jëndal ay billets. waaw di woo waa Guédiawaye bu baax a baax fans club 100 pour 100 Bébé Garga bi maa leen di woo ñu jàpp si bu baax a baax gën a mobiliser wu xam ne laamu ji laamu ju rëy la daal waaw bu baax a baax a baax sama papa mbës su ma ko woowee mu ñëw su ma ko woowul mu ñëw woo waa école de Balla Gaye yëpp di sant Lamine Golo suñ coach xam di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax ba si kanam. fàttewoo kenn. damay woote rek. Ah. xam nga wootaa ñëpp rek. Ah. ku déggu sa nga xam ni xel booy fatu. aja ñëw na aw na waatu aw ba 26. xaw ma maa ngi woo autorité parcelle yëpp ñu nekk autorité parcelle yëpp ñu jàpp ci combat bi. waaw hmm. ah, di woo sama papa ak sama yaay di leen wax ñu bu baax. di woo Faye Faye bu ñoo jor di ko bëggee bu baax ak sama gaay yi ma bëgg nii Thier. waaw ah, Thierno Ndaw ak Papa Let xam nga ak Bas Bas Dieng Zende Sadio Mané ak Pape Diagne El Hadj Abdou Ndiaye Jantal Mara xam nga ak Sofia Louza ak Amar ak Mansour Fall ak Medoune maa ngi woo ak waa doole yëpp yëpp yëpp yëpp. waaw ah, ak maman Ndeye Nafi maman Ndeye Nafi moom depuis que nekk mbopat ba tey pare saa ko ndax maag doomam ñooy ànd papa sama mère waaw maman Ndeye Nafi waaw moom tam mu jóg quoi mu dugg fu mu xam ak sama yaay Ndeye Kane Ah, di woo yaay ndeykan bu baax baax baax ak sama waa famille yëpp yëpp yëpp yëpp eh, ma kenn ak famille maam Diouf Diouf yëpp eh, di woo papa Modou bu baax di woo Pape Gueye ah, waaw ak waa Pro Auto yëpp yëpp yëpp El Hadj Dangote di woo Paa ñëpp ak waa diaspora bi di woo sama bàjjen Fatim waaw ah, kooku mun naa ne sama yaay mun naa ko woowee maam eh, muy ba États-Unis mais bi muy nekk fii genre dafa daj man lu nekk quoi daa mosuma manqué dara waa ndax moom taxaw na ma taxawaay papa taxawaay yaay taxawaay na ma taxaw na ma fépp daal est ce que saan xëy garage bi ñu ma dàqee sax moom moo ma yóbbuwaat di ko sant bu waa ndax dafa def lu nekk ci man quoi. Mm-hmm. di wax tamit ak sam papa Ali tamit di ko sant bu baax di ko gërëm di leen woo ci ko bi ñoom ñu jàpp si ak Ali Guèye ak Vito DC borom Italie di ko woo bu baax a baax a baax ak Modou ba France ak Pape Niang sama papa Pape Niang di ko woo mu jàpp ci combat bu baax baax a baax. Ah, ak Ndom Italie am Sall borom États-Unis ah, ak Mouhamed Diallo bu Serigne Saliou waaw bu naa ma ak ñoom Mam Laay ñoom Ngalla xam nga of Issa Kane di sama gaay yëpp yëpp yëpp ak soldaar Petit Lo ah, sama fans club bi maa ngi leen woo ñoom ñëpp di woo Cheikh Ndiaye waaw Serigne Mati ak Abdou Ndiaye di woo waa Tëngéej yëpp yëpp yëpp Assane Global Textile ak Mbaye Gaye waaw Zagli Poit ak Mam Henriette di leen woo Issa Ba mbili mbili ak Dadi waa yëpp di leen ak monsieur le maire maa ngi koy jàpp ci combat bi ak waa parcelle un ba vingt six yëpp yëpp yëpp ak waa Thiawlène waa Touba xam nga waaw waa Ndangan yëpp bëggee maalang bi ma àndal nii mi ngi jógee ba Ndangan ñëw fii dagar di ko bëggee bu baax bu baax waa di bëggee waa Tivaouane tamit waa Diofior xam nga waa Simal waa Fimela xam nga waa Djilass waa Simboyar xam nga waa Touba waa Tivaouane maa ngi woo ñëpp ñëw jàpp si ko bi incha allah. ñii de bu ñu ñëwee duñ xaj ci bébé. ndax combat bi ñu la. non gars dañuy ñëw si wër des rek dañuy ñëw ah, rek. <laughs> incha allah waaw monsieur le hmm. si bu baax a baax benn bolok bi moom laa ko sas Modou Ngom waaw. gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo ñaari xale yaa ngi noonu di leen wax ne nag nañu waaj bu baax baax ndax ay xale lañ yoo xamante nii bu ñu jógee kii bu jógee géejuwaay jóg kii bu jógee paasa jóg yaakaar lañ ci làmb ndax bu ñu bëree mu neex bu ñu bàkkoo mu neex euh, di leen jox di daje mbës maa ngi nuyu bu baax a baax di leen jox dig daje kontaan ci yéen caméraman yi ndax yéen a jàpp bu baax a baax bu leen dagg dara nag di leen jox dig daje ba beneen yoon ak yeneen jàmmaarloo ak yeneen bët ma